Thank you. Ça va Ça, va, est-ce que maman mun naa xam lan problème hein mais y a quoi même y a quoi. tu connais pas y a quoi. non je connais pas. jamais <laughs> c'est toi tu connais pas y a quoi. mais je connais pas il faut parler. Il y a ce que tu fais là. ce que tu as fait là tes âneries que tu as fait là. Tu pas Tu ne pas, y a quoi Tu m'as menti et puis tu t'assois ici, tu dis, à quoi Regardez. Est-ce que c'est la, est -ce que c'est la fin du monde C'est la fin de nos relations. C'est la fin de nos relations. Regardez. Ok. Eh, Maya, dis la problème. Beaucoup là la elle a soutenir un ça y ici le donc problème pour ma il nga que tu sama clan bi mais su que li pas bëgg def donc toi tu penses que je moi je dois soutenir moi ta maman tu penses à ça toi ton problème là lorsque tu apprends tu as fait quoi tu es parti dire à qui à moi tu m'as pas dit ni Yama ni ton papa ni ta propre femme que tu dois avec lui tu dois avec ta propre femme dans la même chambre tu dis pas hein. Tu as cherché ton, c'est pas quoi, quoi. Hé, eh, faut pas parler, hein. Il dit, faut pas parler même. Laisse-moi tranquille. Je suis tranquille ici. Tu es venu me déranger et puis tu as osé enlever mes pieds t'asseoir. Laisse-moi, Jean-Michel. Hein. Parce que lui, c'est un grand problème, c'est pas un petit, petit problème. Hein? C'est ça, mais c'est pas. Il y a quoi aussi? Eh.

Toi, ton grand frère là, il t'a rien dit. Son papa, même Yama qui l'a fait grandir dans la maison, rien du tout. Maintenant, il s'en parle, il dit oui. Couche, avec Avec sa femme. Quand il dort. Thomas. Eh, je peux dire, il dort avec sa femme. Ah, d'accord. Ah, c'est ça, on dit. D'accord. Vrai, vrai français dit coucher. Ah, d'accord. Eh, eh t'es, toi. <laughs> Tu as dit, il y a un bam, quatre dîners d'or, on voit un Bam, bam. Il ne faut pas insulter, j'ai dit, il ne faut <laughs> pas insulter dama ne. Eh. boo amee to doom. Uh-huh. da nga koy wax dëgg. c'est la vérité. xanaa xamoo doom yi bàyyi ñu ngi ñu ngi am ay problème ñuy yooyu. di mm-hmm. dugg ci yoo xamante ne. wallaay seen yaay ñoo yéen bëdd ndeytaan nàmpatay yéen. te seen mm-hmm. bopp bëddul yéen wax dëgg. tu sais l'erreur que nous on a fait là. Ah. on devait t'écouter même. des années tu es en train de nous ah. avertir chercher où j'ai trouvé l'argent vérifier vérifier nous on va pas vérifier ah. on est aveuglé à son argent là mais aujourd'hui, là même, là, il n'est plus mon enfant. Hein? Il n'est plus mon enfant. Je l'avais dit, hein. Et maintenant, voilà. Jean-Michel, là, il n'est plus mon enfant. Je, suis plus à maman, quoi. Ah. Jean-Michel. Ah. C'est moi qui l'ai accouché, non Je ne l'ai plus accouché, même. Hmm. Hmm. En tout cas, dans pays de la Merci beaucoup. Merci beaucoup, là même là, eh. tu as donné raison à toute la famille. C'est comme ça. Il faut qu'on l'éduque. C'est comme ça. <laughs> Eh, une Mabi. <laughs> Eh, yaay une sama Eh, une Eh, une Eh, ci ma Eh,

ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين si ban ko waxee ndax yéen xam ngeen ne kër gi critiqué na kaa bi fi nekk doy na waar yéen xam ngeen ne Jean Michel mu ngi nii saisir nañu oto yi yéen yëpp ngeen ciy teg seen bët dégg nga UG li mu wax dans un mois balaa weer bee dee wala yooyu sax mun nañu saisir waala kër gi mais ñun duñ ñu saisir ñun nit ñi waa kay ñun dañ ñu ñu saisir waaye kër gi bu ñu saisiree ñun fu ñu jëm. nijaay. dama may ma yeggale ndax umpalewu leen ñun ñun amatuñu daal ñu fu ñu jóge woon yaakaar naa moo doon suñu jëglaay waaye ba ñëwee fii ma léegi si problème lañ dem ñu war a xoolaat suñu bopp ndax kat li si kanam rawitu bët de te man bëgguma seetaan bu ëllëgee ku nekk di ma romb naan ma xoolal jóg fu mu dëkkoon ak léegi fu mu ngeen baal maax nijaay dañu naan bu ndox tuuroo ak mbàq des ma ne déedéet ndax mbàq ba amuloo la benn njariñ bu ndox tuuroo dangay dem rootiwaat gor nag ci boppam du toog ba ñuy seppi loxoom naan ko jógal te nag daw ca ba ngay ami tànk xanaa yaakaar ma bëggoon bu ñu xaar ba ñuy génne nanu dem xool kër gu yemamaay toog fa ba yàllay ñëw ndax toog bu wiisee ñëw génnee bagage sànni ci mbedd mi ak waa mbedd mi ni ñu mën a waxe surtout fii yàlla gi géwél nga xam dañ maa teg bët sama loolu sama defet duñ ko am ce que vous dites vous tous ça même moi ça me concerne pas xanaa doo doo génn de moi-même là quitter dans maison là aller faire derrière, l'autre ah. retourne derrière. Ah. Je préfère pas. Je rentre là où j'ai quitté. je rentre à Bijan même. Moi, je m'en fous de tout ça là. Ah. Toi et puis ton fils là. Moi, je m'occupe plus de vous. Il n'y a pas mon problème entre vous tous même là. Mon préoccupation, ce n'est pas mon préoccupation. Moi, je ne peux pas quitter dans la maison, coin, coin comme ça. Et puis, je vais dans la maison, villa. Et puis tout Abidjan sait que j'habite dans la maison de piscine. Moi, n'a qu'à retourner là-bas. Là. Je préfère mourir. Il dit, je rentre chez moi. Yo, yo, Abidjan, c'est casse, de quoi? Casse, casse, casse. La casse de Birama si nous bâtiment Sénégal. ma ne que tu veux pas man Il a des films de fi dee ñu Ça t'arrange bind yama ça là ça t'arrange même ça t'arrange moi naka parti ça t'arrange Donc, je vais te faciliter ça là Donc, doo da nga dul dem man c'est moi qui ai parti teew yé papa ngeen baal ma nag ma yaam yi bu nee day dem mun nañ ko téye ndax sama rakku papa bi papa adam te mu nek poste mu mi ngi doon tabax fan yi passé ay kër ñakul bu ci paré wala bu ci paré gul sax mu abal ñuko moo gën moom mu nar a dem parce que moom demam suñu defet la ndax bu dul dara man léegi ci famille bi laa bokk te yéen tam ci sama famille ngeen bokk te papa Adama sama rakku papa bu baax la te saa su ne su ma amee problème su ma ko woowee daf may jàppale mën naa kaa woon nag mu jox ñu benn kër xam naa ni loolu moom du problème. loolu jaru ko naa la naa la ndax golo bu am jom nga ndax xalaat bi nga joxe nii rafet na trop waaye man maa munul. di delluwaat sama kër goro ñu may abal may dëkk xam naa ne dara nekk si waaye dama kaa mënut bee bee yii yëpp waxoon naa yéen to ca njëy beel nee naa yéen tee wax mujj yafet wax naa yéen fii neen ñun xamuñu yii xamuñu ay dëkk ci këy gu yafet xamuñu ay bitim yaa yaa ñu natt bu yaa yaa ya nattoo dañ tooy nandu. yaa yaa ñu nattoo ah, ñàkk situation bi ni nga koy defee du da ngaa def sa leçon de yaay ba pare may ma tuuti. gis nga dëdd neexuy boo tey wax da dem droit au bi ñun xamuñu am ñàtt ya ñu am xamuñu am dëkk ci ay bayaag ya ñu xam dëkk ci ay kër yu payeegu ci ay adduwaas nit ki bu yee yaaya nattoo daya waaye yooyu nekk sa way sa dooto footte nit ki sa way sa dooto footte dangay xam ni yii yee yaaya jag yeey nga dem ci yooyu waaye ñu ñëw fii nday fi mu nii tàmm ngeen pitin fi mu nii tàmm ngeen këyim fi mu nii tàmm ngeen tëdd ci mat yaa bu nooy fi mu nii tàmm ngeen yett yett bu neex fi mu yi nii tàmm neen tàmm neen tàmm neen yu neex ah mu ni noonu yaaya day bàyyi ba nga tàmmuto nag mu ne yee yow yabayuma ya fii fii yaaya jox fii yee yaaya jox danga koy jëy yaaya ci ay bayaa këy suuf ya ñu jox këy yoo xamante ni da ngay xëy di yaay di bayee ah tama yaay di bayee fee di cuuyaay këy gi di kii mais mu ngi ni yéegi nag yéegi nag yi am am na ah waxuma saisir këy gi waaye ñun ñii yee ñuy saisir ñun ñii ñun ñee ñu liggéey saisir